Moustapha mbay ñu gën koo xam ci mbay Sapar Sapar moom nag nekkoon nit ku baax ku fonk nit ak ku yëg nit nekkoon tamit ku am ak jàmm ñépp ndax euh, defe naa ni lim fi bàyyi rek wane na ko munoo génne ci moom benn image wala vidéo wala ojo boo xamante ni mi ngi ci wax nit dara lu ko metti mësuma koo gis te amul te defe naa ni mbay ku nekk mën na koo seedal sa bopp man nag yàlla dafa def ñu xamante woon te suñu xamante mi ngi jaare woon ci Lasga ndax Lasga da doon def concert chaque année 24 décembre théâtre Verdi de Mbacké mo moo nek ci buntu bi té bu mosaa nek ci buntu bi waxuma la dara rek ful ak fayda ak kaf gi daf ci daan jouer ba bo ñëwé même buy wax ak yow dina wax ak yow ci no xamantani ni mu mel ni comme ko nit ñi di rétané ci la té du la mës dépassé def jamono di dox ñu xamanté ba fu ma ko masaan dana téye sama loxo bi ni ma dos kay té lu ngeen ci xamul mom bañ kat la won ba foko ko masaan di jaay ay produits yo xamantani bu la gisé dina ñëw wa saway atté jëndal tey moom di nga jënd te amu ci complexe ba siiw gi nga xamante ni nii siiw na ko sax moom amu ci woon benn complexe foo mu mosaan dem produit yooyu muy jaay day wane nii man lii laay jaay kaay ma jaay la nekkal boroom alal amal lu dul jeex mais nit ñi nga xam ne xam nañ ko moom bu mosaan seen si mbedd comme ni gars yi di def di ñoo di estar ak yooyu moo lay njëkk a woo man su ma ko rombaan rek mu ne ma doos kaay kaay fii laa la wax ñëwal waaw man de yow man ma xam estar moom maa la gën a doon estar waaw amul loo may jaay de <laughs> daal di reetaan ndeysaan waa kaay fii na kaay ma jaay la lii maanaam wane ni man méttilul dara ndax am na ñi nga xamante ne tey jii nii ay artistes lañ fii lañ dëkk moo xam Bawal moo xam Dakar moo xam feneen ak feneen mais tuuti succès lañ am rek commencé beew commencé yëg seen bopp te moom du maa ko koy waxal mais nit ñi ñoo ko ko seedeel ndax defe naa ne ku dëddu àdduna ak noo mën a mel ak nit ñi dinañ wax ni nga mel waaye bañ koy gunge image wane na ko bi mu faatoo tamit image wane na ko ndax gisoo fenn fenn fu nit waxee ne mbay moo mos a wax lii même boo demee ba ci tiktokam vidéo ya fa nekk yëpp mosoo koo gis fu mu tooñee nit waxalu ñaaw mosoo koo gis fu mu waxe wax jo xamanteni tay ji dang koy xeb te defena ni lolu lu jara ñaan la surtout ñun ñi nga xamni jamono ji ñi ngi yëngu ci mbir yi ñi yëngu waye des fois amna ñun ci waxe no xamanteni tay bo togaati di seetaan di nga rus waye de lolu amul ci mbay sapar sapar kon dañuy ñaan suñu borom ak Serigne Touba mi nga xamni mom lañu yaakar te momit mu kenn kennaloon ko yalla nako xare aljana ya gëna kawé kawe bañ na ko ba ma ngi doon déglu ben audioom muy conseiller ben ko xamni ci TikTok bi la nek mu naan ko bul fatani Touba nga dëkk lolu wax juma marqué la bul fatani Touba nga dëkk parce que que mbay ci ni muy soloo day wane ni moom am na fa mu bàyyeekoo muy dëkk bu sell ba doo ko gis mu ah man de musuma koo gis xanaa temps bi mu doon garde laa ko doon gis sol tëni garde rapproché yi ni comme sama genre gi li ñuy sol déedéet murite teg si tamit mën a reetaan loo nit te du la mës a kon de man royukaay laa ko def te keneen ak keneen tamit royukaay la ko def nga gis seede yi nga xam ne nit ñi def nañ ko ci mbay ay kilifa yoo xamante ni moo xam kilifa diine kilifa aada ku ne li ko may mooy ak dalam ak yaroom ak amuk taalibeem temam gi nag bet na ñëpp waaye nag yàlla moom bu soxlaa ñëppay ñàkk donte ku nekk yaa ngi ci wax lu ne lii ak lii waaye bés boobu moom munu ko woon weesu bés la woon boo xamante ni tey muy man di keneen ku ca àpp jot doo ko weesu mu kon nañ ko ñaanal suñu borom xaare ko àjjana ya gën a kawe ni ñu daan bégale fii yàlla na gën a bég foofu mbooleem képp koo xamante ni fa la ko fekk ak ñi nga xam bi mbay demee topp nañ ci moom man loolu laa amoon ci lu may seede ndax li may wax ni ci sama xol laa ko tibbee waxuma waxuma ko pour damaa am envie nii rek toog di wax parce que damoo am lu ma jot dund ak moom te jàmm jooju il faut ma wax ko muy man muy Serigne ja xuuj li may wax xam na ci dara las lasgaa mi ñuy xamale li may wax xam na ci dara ak gaa yi nga xamante ni yépp ñooy ànd xam nañ kan mooy mbay sàppar sàppar ci yaatoom ak baaxaayam kon maa ngi ñaanat yàlla na ko suñu borom xaare àjjana yi gën kawe ci dara daraje Serigne Touba.